toroxlu ba xam ne moom itam jaamu yàlla la waaye ñu jàkkaarloog suñu borom bi nga xam ne moo ñu sañ a sant ñu war a xam naa xol tooy na mm, xam naa ne yaram daw na ku dégg kàddu yi sa xel dana am ci lu bari lum dem alaj si lamin yàlla na yàlla yeesal yërmande ci kawam yàlla na ko yàlla doolee defal njéggal waaye nag tabaarakalla nii la àdduna ngi noonu tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna naas dafay tourné rek tabaarakalla alaj si lamin daaw ci waxtu wi mu ngi fi woon ren yàlla dogal na fekkewu ko yàlla na yàlla ma yërmande ci kawam xam naa ne fi mu toll nii bari na ñu toog ci seen saal wala ñu nekkoon ci ay béréb dégg kàddu yi seen yaram daw na seen xol tooy na tabarkalla ngir li ñu dégg ci alaaj si lamin alaaji daawda silla léegi mu ngi may woo tabarkalla ma di ko ziyaare waale mook soxna Amin Njaay naan ma maa ngi nii jàkkaarloo eh, ndeysaan image u alaaji si lamin bi tabarkalla ma ziyaar ko bu baax bu ko defee xam naa dañuy daal di dem direct rek ca arafa Oustaz Assane salaamaaleykum. waaleykum salaam Oustaz Mouhamed maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem waa Sénégal ak ñi seetaane di ñu dégloo ci bitim réew. macha allah Oustaz Assane yéen a ngi waxtu wi tembe ca Arafa. Mhm. yan ak yan darsu nga ñuy indil ca Arafa fi mu toll nii. Euh, jërëjëf Oustaz Mouhamed maa ngi lay nuyu di nuyu équipe ba nekk foofu yëpp moo xam technique la wala ñi nga xam ñu ngi lay jàppale ci liggéey bi kooku di euh, Souleymane Diaw ak euh, mboolem équipe bi Penda Diallo Gueye ak équipe bi ñu àndal. ko defee rek wax nga dégg waxtaan yi nga xam ne teg ngeen ko noonu rajo si biir ñett doon taxaw fii ñu taxaw nii di ko def waxtaan la woo xam ne tooyal na xolu Sénégalais yi ndax yàgg nañu di yëg vide bu rëy bi nga xam ne rajo si biir ñett bàyyi na ko rawatina ci bés bi nga xam ne moo di bésu Arafat fii itam mbooloo ma jàkkaarloo la nii lu mel noonu itam la ñuy wax fees na del fi ma nekk nii ak ay kilifa yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko foofu ca Sénégal ngir euh, yàlla dogal rek ñu teewee bés bi war koo dund mu euh, ngi fii ak euh, kii di oustaz Babacar Babacar mu xam ko lool ci mbiru aju màkk gi ñu ngi fii itam ak oustaz Ahmad Diop di jàngalekat di yarkat koo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko ci média yi naka noonu itam docteur Mouhamed Ka mu ngi fi ñu yàgg lool di taxawee wàll yu ni mel di orienté askan wi ak euh, oustaz euh, Bouma mu itam euh, mu oustaz Saïd Boumou mi nga xam ne itam boobu ba léegi bi ñu ñëwee mu ngi taxaw ci liggéey bi ak ñeneen ñu bare bare ñoo xam ne xëy na lim leen jotaay bi du ko du ko du ko du ko maye waaye incha allah suñu jotaay yi di ñëw dinañu ci jukki ñeneen ñi ñu ci ànd rek ak kii di Maraga voyage nga xam ne wax dëgg yàgg na di ànd ak moom. ci ay liggéey yu am solo rawatina ci bés yi nga xam ne moo di bés aju màkk mu ngi fi ak mbooloo moo xam ne mbooloo mu ànd ak dal mbooloo moo xam ne dafa jublu borom ci ñaan mbooloo mbooloo moo xam ne mu ngi ñaan jàmm ci askanu euh, lislaam ak askanu Sénégal ci loolu rek dañu programme nag ñu tomb ci topp ci euh, toll ci tomb boo xam ne Oustaz Hady Niass mooy def benn waxtaan waxtaan wi nag mu ngi ko jëmale rek ci bés bi bés bi lu muy undu ci ñi nga xam ne ñu ngi fii ci Arafat bés bi lu mu undu ci ñi nga xam ne nekkuñ ci Arafat ndax promotion la boo xam ne promotion jamono la ak promotion béréb fu waay nekk rek mën na taataanee loo xam ne mu ngi dëppoo ak li nga xam ne euh, fi nga xam ne foofu nga nekk bu ko defee rek euh, ñu dem di jox Oustaz Hady Niass mu nuyu mbooloo mi waaye à travers ñoom mu nuyu euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy dégloo di ñu seetaane foofu ci Sénégal te ñaan yi ñu yóbbanti loolu yëpp incha allah euh, suñu mbokk yi ñu ngi leen ko jottali yéen ñu ngi leen ko jottali waa Sénégal yëpp ñu sàkku ci yéen ñaan kon fas leen fii ngeen toog nii ngeen ñaanal ñooñu yàlla faj seen aajo tàgganti seen tak tak may leen jàmm ak jàmmu yaram ak jàmmu ruux yëpp kon Oustaz Aly ma bàyyi la ak euh, mbokk yi nga def sa conférence. tabarakallah alhamdulillahi xatta yarda wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin almurtada wa ala alihi wa sahabatihi ذوي التمكين والرضا wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yalqa al al-fawza wa rida mbokki jullit ñu tedd yiñ bokk ak yàlla bokk nekk ci palaasam bu tedd gi di Arafa maa ngi leen di nuyu yéen kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ak ci jëmmam nuyoo bi gën a tedd yàlla jagleel ko xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gën kon nuyoo nañ leen ci place bi gën a tedd nuyoo leen ci baax yi gën a tedd waaye ci bis bi gën a tedd bis ba di bisab arafa place ba di palaasu arafa nuyoo ba di juróomi baax assalaamu aleykum wa wa barakaatu nuyoo boobu nag leel fi mu ngi nekk ci àdduna bi ci juróomi continent yi ci àdduna bi yépp nag li ni nuyu waaye di ko jagleel xujaaj yi ñi bàyyi ko seeni réew ñoom ñépp ci waxtu yi ñu bokk dajee ci benn palaas ngir jooxe genn jaamu yàlla seen couleur ya wuutee seen langue ya wuutee seeni culture wuutee waaye ànd ak loolu lépp seen xol yi ak seen rox ñu ngi communiqué loolu yi nga xam ne mat nañu douze mille huit cent bàyyee ko Sénégal te boobu nombre mooy li mu soldaaru jullit ay jullit suñu xasee mag douze mille buñ doon xeex ak àdduna bi yëpp amatuñ droit daw waaye buñ ko manqué bu ñu leen ëppee lu ëpp ñaari yoon rek sañ nañoo daw te duñ ci am benn bàkkaar kon nombre bi bàyyeekoo Sénégal dafa ñëw teewal l'islam bi yëpp ci àdduna bi ndax dafa taxaw taxawaayu armée jullit ñi ci biir nombre fda bi maa ngi ciy jagleel nuyu ñi yàlla dogal ñi ànd ak ñoom te ko Sénégal ba ñëw fii di waa Marega sant leen gërëm leen ci seen taxawaay ci yitte ji jox nit ñi fii ñu toog mënoo fee xàmmee ki jiite ak ki ñu jiite ñëpp rek ñoo bokk xarmal bokk ronu menn mbaar bokk di ñàkk ak muus ñi yore wantaay di upp ñu ko amul timit bëri waaye ñun ñëpp bu lekk jotee doo xamee ni ñii ñooy seef doo xamee ni ñii lañu seefu loolu nag danay néew ki la jiite te saa yoo gëstoo gis ko dafa lay dalal sa xel mi yow mi ñu jiite te loolu la ñu gis ci ñoom ñoom seen nombre bi dana mat deux cent soixante six deux cent soixante six ñu ko jëlee siifur ko dafay tolloog yaa ayyuha alladina amanu boo jëlee maanaam nusbiru xam sa googu doo ko jàngale ci warsu dafa lay jox trois cent soixante huit ba ba trois cent soixante neuf boo jëlee alif di ko xëcc ca gannaaw waaw ga ca kanam waaw ga loolu nag da ngay àbb ñetti chiffre mu ñëw fekk chiffre bi ñu amoon mooy trois cent soixante six nga àbb muñ ne liggéey bii ñuy def kenn mënu koo matal te muñuloo nga am trois cent soixante sept ñaareel bi nga abbu muñalante ku ci nekk te mënoo muñal sa morom te liggéey bi du sotti ñetteel bi nga abbu siifuru yaatu dënn muy lewet soo jëlee ñetti siifur yële li ko ci siifur bi nga xam ne moom la mare gaa am dafa lay jox trois cent soixante neuf trois cent soixante neuf nga xam nga lim lay joxam mooy allahu qabala xajjakum yàlla na seen xaj kon foog ñu am buñ jëlee lim bi ñu am dolli sa ñett yi mu laaj loolu rek la la lay jox ñu nuyu tamit suñu mbokki waxtaan yi ñëw àndandoor ak waa Maréga yi ndax léegi-léeg nga bokk nit lu ngeen di def te du ngeen mën a ànd li la ci mën a dimbale mooy ngeen bokk jikko ñoom nag bokk gi ñu bokk jikko moo tax ñoom ñu mën a ànd nekk nañ ñoom ci seen bopp rek deux cent quatre-vingts kon loolu ab lim la mu mel ni bi ma xoolee asaati si nga xam ne ñoom la mbooloo mi composé nga jël tabaarakallaahu al oustaz Aboubacar Thiam mii seen i max jël al oustaz Madiama Ka Mouhamed Jamaka di al-alim al-allama al-katib di shaa'ir boo gisee master 2 bi mu def bind ko ci góoru yàlla bu tedd googu maam Khalifa Niass boo ko liiree rek uslub du guddee da nga yéemu borom dëgg moo ko def mu nekk ci préparé tamit doctorat am ci réew mi dana war a génnee doctorat am ci maam Khalifa te def na ko ci lu mat lu ëpp 400 pages. loolu nga bind ko ci nit yàlla ala kulli haal loolu laaj na ne moom baaxis magam mag a mag la moom tamit mu ànd suñu xarit suñu soppee suñu gisee ci Sénégal bariwul waaye suñu roox ñu ngi gisee di al Oustaz Ahmed Diop tabaarakallaahu di boroom xam-xam bi ma ko gisee ñu njëkka a nuyoo rek dama ko xamal ne ko dama lay siifu moom ak al Oustaz Dame Ndiaye seen waxtaan bu ma jàppee ba ba tolloo ca rek dama koy seetaan ba mu jeex mbaa ma seetaan ko ah, bu ma ma door koo mën a bàyyi kon ngir naw seen xam-xam te naw ni ñuy joxe xam-xam bi ndax léegi-léegi nit ki dana am xam-xam waaye la muy joxe xam-xam ba dafa ciy jaayuwaale di ci tiitorowaale ba ku yàlla sof moom dootu la soxal waaye ñoom li ñuy joxe jaayuñ ca dara wane wuñ ca dara na ko yàlla waxee rek lañ koy waxee ku mu neex nga jëree ko noona mu neex la ku mu naqari tamit nga bàyyi lañ ko noona kon moom mii bu ngeen ko giitalee jiitalee tabaarakallaahu mat na njiit ci xam-xam macha allah waaye mat na njiit tamit en même temps ci jikko kon yal yàlla dolli koo dëgëral waxtaan wi ñu def ubbee ko arafa gi doyoon na ci yóbbal loo ko jox lu mu rëy rëy ak lu mu bëri bëri mu ne dolli ma ñu ko yóbboo nag dañoo war gëléem ba wàcce ko door a war mbaam dañoo waroon gëléem dugg aljaana ñun ñii ñëpp yàlla ñu ñu génn fa te bañ fay dugg julli wuñ wooruñu joxe wuñ asaka ajuñ màkk moo xam suñu maam aadama yàlla natt ko mu génn fa yàlla ne la nga fay duggaat da nga julli ba dee woor ba dee joxe asaka ba dee jokk mbokk lu ne da ko def moo tax bu xasee dugg rek dootul génnati mukk na wax boobu waroon ñayu aljana wàcc ko ñëw ci àdduna bii mu soppeeku am mbaam di dundam nattu looloo waral loo jox nit lu mu bari bari ak lu mu baax baax rek mu ne doon na doon doon ni xir ga ci maamam Seyduna Adama waaye wax dëgg yàlla lu saas li mu fi doy na sëkk nuyu oustaz Sylla ah, ah, a ci orange bi moom tamit gis nañ ko ak oustaz bi nga xam ne moo joxe léegi discours ak suñu bàyyi bopp ji nga xam ne mooy imaamu Bakel bi euh, moom tamit muy Thierno Wan Mamadou Wan di borom xam-xam moom tamit mi ngi teew ci bi xam naa ne daal Marega ak Tanhim seen ànd mën naa sori mën naa rafet bi ma ko jàngatalee mag mu soxorul moo ànd ak xale bu bëggul àdduna mag bu soxorul jiital xale bu bëggul àdduna seen ànd mën naa yàgg waaye mag mu soxor bu la jiitalee déglu sonn du ngeen sori dafay mel ni rek doxam mut yàlla nattoo kilifa ak mu jiital la du ngeen sori ndax boo ko jiitoo mu ne dafa bëgg a dundee gunóor yi ma doon dundee nga ne ko kon jiitle mu ne dafa muy diir mbagg nga ne ko kon jiitu lu ma topp sa gannaaw mu ne sama doxin wu ñaaw wi rek la bëgg a ñett nag bu ñuy ànd ki ngay ànd ak nanguwul jiital nanguwul jiitle nanguwul jiitu jàmm dafa am li ko waral mag mu soxor waaye tamit boo nekkee mag mu baax mu yaatu xol mu laab xol nga jiital xale bu bëgg àdduna dafay mujj yi tiitaru sa kaw dafay mujj tamit di la jaay affaire ba loola sàppi la sëy ba tas kon seen sëy bii yéen ñaar tabaarakallaahu yaakaar nañ yaakaar gu dëggu ne dana nekk sëy bu yàgg yàgg dana nekk sëy bu neex dana nekk sëy boo xam ne bu ñuy sant la ak mujjam ndax sëy la boo xam ne mag mu soxorul imaam Aboubacar Caam imaam wan ñoo jiital ay xale yu bëggul àdduna imaam Mouhamed Jamaka ak imaam Aboubacar tabaarakallaahu Diop ak Ahmed Ahmed Ahmed Diop ak ñi ñu ànd ak loolu ànd gu yàgg rek lay mën a doon. li ñu fi indi nag gannaaw nuyu leen mooy ndokkeel leen danaa leen ndokkeel ci bis bi ndokkeel leen ci weer wi. ndokkeel leen ci place bi ndokkeel leen ci jaamu gi juróomi ngëneel yi yëpp lañu yàlla jagleel ci suñu jotaay bi yàlla jagleel nañu bis bi foor lislaam am na ay bis waaye am na ci bis ci bis yoo xam ne bëccëg rek moo foor waaye guddi ga foorul am na ci yoo xam ne guddi ga foor na waaye bëccëg ba foorul am na ci yoo xam ne bu bëccëg ba ak guddi ga yépp bokkee foor nekkuñu ci weeru foor ñoom ñaar ñëpp bu ñu bokkee foor nekk ci weeru foor nekkuñu ci balaas boo xam ne bu foor ñu ko fay joxe waaye nag suñu jotaay bi yàlla dafa ñoo dimbale ñu koy dund ci bis bu foor yow mu arafa di bis boo xam ne moo gën ci bis yëpp bëccëg ba foor na guddi ya foor na fooraay baa tax yàlla gën ca ne wal fajiri wala yaari la xas kon bëccëg yaa ya song waaye bi guddi ya fooree bëccëg ya foor dafa nekk ci weer wu foor weer woo xam ne ñaari garaat na takk weer wi takk na garaatu bokku ci weeri aj yi ndax weeri aj ñett la wori diggi tabaski te ñu ngi ci weeru tabaski yàlla ne alxajju ashurun maalumaat kon ci ashurun maalumaat yooyu ci la weer wi ñu nekk di dund bokk ñaareel bi weer wi bokk ci ñaareelu garaat bi bokk na ci weer yi nga xam ne dañ koo xormaal ba alquran di wax ne minha arbaatun xurumun ñeenti weer yu xormaal yooyu nga xam ne ci jamonoy jaahiliya ba lislaam ñëwagut sax nekkul weeru jaamaarloo mais weeru jàmm la woon weer wii ñuy dund ci la bokk bokk ci fukki fan wi njëkk yi nga xam ne lépp lu ñuy defal yàlla ci wax ci jëf ci pas-pas defalee ko yàlla ci fukki fan yi ma ko ko kon bis ba foor na ci bëccëg bis ba foor na ci guddi weer wi nga xam ne moo ko ëmb foor yàlla may ñu sansu place biñ koy jooxee di place u arafa en tant que makaan walla nga ne bisab arafa en tant que jamono mu foor ci place foor ci jamono ndax arafa gii boo fi ñëwee ñëw nga place boo xam ne yonantu yàlla yëpp dëgg nañ fi seen tànk ba mooy ñetti yonantu ñoo fi ñëw ñetti yonantu rek ñoo ajut yonantu yàlla huut ajut yonentu yàlla saalihu ajul yonentu yàlla soaybu ajul bu ko mooyee ca aadama ba ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu boo waxati rek aj na taxaw na arafa kon ku ñëw arafa yàlla man na laa xeewee sa tànk bii dëgg ci tànkab fu suñ maam aadama dëggoon mbaa fu suñ maam ibrahima dëggoon mbaa fu suñ maam yonentu yàlla noox dëggoon wala yonentu yàlla yaquba wala yonentu yàlla Suleymaan wala sayiduna Muhammad ak mbooleem kibaaru saxaba yu tedd yooyu nga xam ne seen tànk ya root nañ ci kon ku fi wàcc wàcc nga ci place bu tedd wàcc nga ci place bu barke wàcc nga ci place boo xam ne place nanguwaayu ñaan place ab xéewal la place timit yokkute la bi nga ñëwee timit mënoon ngaa am bis bi gën a foor ci bëccëg am ko ci guddeem am ko ci weeram am ko ci barabam waaye doo ca am li ngay jëf gënut li ngay jëf gënut ca jëf ya wala la ngay wax gënut ca wax ya waaye tey li war a yendoo arafa di ko wax yonent bi nee na moo gën ci loo xam ne man Mustafa wax na yonent yi ma jiitu woon afdalu maa qultuhu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha kon yàlla may nañu biñ nekkee ci gën ci barab gën ji weer gën ji bëccëg gën ci guddi gën ci palaas ñu am tamit gën ci kàddu yu ñuy yëkkati di ci tooyal suñu làmmiñ waaye mu mayaat ñu sansu ñu nekkee fi gën ci jëf jëf ñuy jëfal yàlla yëpp aj màkk moo ci gën yonent bi laaj nañ ko ko ay waa amaali afdalu dañ ko ko laajee ne jëf ci gën dafa ne alxajju yum cee yaataf door bi ko ca teg lu tax aj gën aj maanaam aj gën ca boo jëlee aj dafa dugal jaamu yàlla yëpp bi nga ajee julli nga bi nga julli bi nga ajee woor nga bi nga ajee joxe nga asaka bi nga ajee jaamu nga yàlla ci tuur deret bi nga ajee jàng alquran bi nga ajee déggalu nga yàlla bi nga ajee ñaan nga bi nga ajee toroxlu bi nga ajee labay kaw nga waaye bi nga ajee tamit saraxe kon xeeti jaamu yàlla yëpp aj far na ko labal naka la aj labalee julli bi nga paree pour soobu ci julli ji soobu ci aj ji ga armal ga dafay nekk ci gannaaw ak julli mën naa nekk ci gannaaw julli farata na ko yonent bi defee wam su fekkee bi ngay armal jamono fa dafa passé wala ñëwagul mën ngaa naafila ñaari rakka moo tax Cheikh ne la wal fardu mu gis armal gu nekk ci gannaaw ak farata gi dana doy jël fut naafila kon aj dafa nekk ci gannaaw julli xeeti julli yi ñuy julli yëpp di ko jaamoo yàlla jaamoo nañ ko yàlla ci aj ji far julli nañ ko jaamoo yàlla ci julli guñ matal ñaata lañ tal fii ci julli ci mën a wax ak ci makka waaye tamit yàlla dañ ko jaamoo julli gu ñuy wàññi ñaata julli la ñuy wàññi fële ca Minan di ko wàññi fii ci Arafa julli am na ci julli gu ñuy tuddee jamoo taqdim am na ci julli julli gu ñuy tuddee jamoo taxiir waaye tey fii moom la def muy jamoo taqdim

tax na ba ñuy jullit ñu tiim ci am yoon bëggoon julli ñu ko fekk ñu bëri dañoo tiim borom la julli ci mën a ko a jëfandikoo moo tax ñu ngi tiim suñu bëri waaye def nañ tamit ñaar julli ñaari am ko joxe julli ko mu mat nga jàng fatiha ah, lu ko su joxe saaya wala nga joxe ko ci askan bi nga toog ca toogaat la nga junj rukkoo ya junj sujjóot ya su ko defee bi taaya sal bii dañ koy toogaat junj nañ julli ci biir avion bi ñi junj seen i julli su biir oto bi nga def ko ak bàq waaye yéen julli kon ay loog Walf TV di leen may taxaw Arafat <laughs> bi <laughs> <laughs> waa mbokk yi mu ngi noonu yéen a ngi koy dégg noonu Serigne Hadi ma nga foofa saa sana ngi foofu waaye jafe-jafe technique tuuti rek la ñu amandi xam naa du ñàkk léegi rek danañ ko joyantiwaat ndax ajaratu Penda Diallo Gueye ma nga ca gannaaw te ma nga ca incha allahu taala danañ ko joyantiwaat léegi ngir déggin bi gën a leer bu baax a baax ngeen mën a dégg li eh, Oustaz Hadi di ko wax yéen a mu ngi wax teraanga yi nga xam ne am na ca Arafa. ca jagle ya tabarakàllah ci jaamu yàlla ya fa daju macha allahu taala ci te tedd nga gi nga xam ne yàlla mën na laa dimbali soo taxawee ca arafa mën na nga teg sa tànk foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegoon na ko fa mën na nga teg sa tànk foo xam ne kenn ci yonent yi teg na ko fa ndax tuddal na leen ne leen yonent yëpp aj nañu eh, ba mu des ñetti yonent muy yonent yàlla Huud yonent yàlla Shuayb ak yonent yàlla Salih ñetti yonent yooyu rek yonent yi nga xam ne ajuñu ci seen dund waaye yonent yi ci des yëpp aj nañu macha allahu taala kon ña fa nekk yàlla mën na leen defal teraanga googu ba ñoom ñu am chance bu toll ni teg seen tànk foo xam ne ab yonent teg na ko fa baa nga teg sa tànk foo xam ne ab sahaaba teg na ko fa arafa ngoogu nag ndax wax naa la sànq bi ñuy tàmbali ne yonent bi daf ne woon alxajju arafa ñu bari nag dañuy jàpp ne montagne ba moo tax ñuy wax ndax yonent bi mu taxawee ca montagne ba la taxaw waaye daf ne waqaftu hahuna wala arafa kulluha mawqif fii laa taxaw man ci montagne bi waaye arafa tund wépp fu waay nekk am nga arafa moo tax ngeen dégg Oustaz Zahadi di wax noonu Maréga voyage fa mu nekk ak espace ba mu nekkee nga gis tant yi xool nii gis agence yi fii gis agence yi gis sénégalais yi fii gis ñeneen ñi nga xam ne duñu ay sénégalais ñu ànd ak Maréga voyage tabarakallah ak Tanaim ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi koy liggéey Serigne Hadi yàlla na yàlla dolli ko dëgëral yàlla dolli ko sutura tabarakallah ñu ndokkeel bu baax ziar bu baax a baax Hadj Mouhamed mbay moom tam tabarakallah jamil nekk foofa ca euh, benn barak macha allahu taala nga xam ne way juróom wu góor wi eh, ma nga eh, teemanu ji tembe ca arafa ngir yitteem ak taxawaayam taxaw way jur wi ba mu dem yàlla na ko yàlla delloo si ci jàmm te nangul ko barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaquba jeeju du ma ko fàtte la moom day sali ña nga toog ñoom tam jàkkaarloo ak jataay bi di bàyyi xel jataay bi xaj ngañ demba mbeng bu Kër Masaar ak mboolem njabootu Kër Masaar ah ñoom ñëpp la moo xam ni dëkke cité Aynou Madi la moo xam ni dëkke ci cité Mame Dior la moo xam ni dëkke quartier Xusna la moo xam ni dëkke Fass la moo xam ni dëkke Ñaay Njuraan la moo xam kum ci mën a doon rek Kër Masaar ba Kër Masaar daj këpp ñoom ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ndax fi mu toll nii tembe kenn ku ne ci ñoom bàyyi nga la nga doon def toog jàkkaarloog télévision wal fajri bëgg a dund arafa gi comme na nga ko daan dundee ba nga xamee ne Serigne Sid Lamine ma ngay dund tabarakallah di ñaanal tabarakallahu ya sayda moom tam mu ngi may euh, envoyé léegi message di ma wax ne ñu ngi bàyyi xel jataay bi ñoom nga xam ne seen cofeel ci alaj si Lamine kenn mun la ko wax barki démb la ñu may envoyé ndeysaan message photo xale boo xam ne ka ko tuddee Serigne Sid Lamine mës ta gis Serigne Sid Lamine musu ko teg bët ci télé bi la ko xame jur doomam ju tuddee ko Sid Lamine xale ba boo ko xoolee daanaka am na ay ñett ba jàpp ñeenti at tabarakallahu kon nag yooyu cofeel la xam naa seen xol yëngu na ndax alaaji Sid Lamine waaye mu ngi noonu arafa gaa ngi noonu oustaz ñu di ko dund dégg nga li Serigne Hadi indi ak li oustaz Salaam. oustaz Mohamed di dellu si waat rek ci wax bu am solo bi nga xam ni oustaz bi Niass doon na ko wax léegi léegi. Mhm. ak jàngale yi nga xam ni oustaz bi doon na ko jàngale. Mhm. mu am solo lool nag doon bayaan boo xam ni euh, àdduna yërngal képp. mën nañ cee tirer ay leçons. mën nañ cee jàngat ay leçons surtout li mu wax ni douze mille huit cent yooyu nga xamante ni macha allah ñoo euh, euh, ànd ak waa Maréga voyage. ñoo ànd agence. ñoo ànd ak agence bi très bien mu toll ci limu douze mille huit cent. Mm-hmm. Euh, mu wax ni gis nga douze mille bu ñu ci xasee egg rek war a bu ñu atta bu ñu xeex songee amatuñu droit reculer. bu ñu reculer itam charia du ñu topp ci benn muy muy sew sew boo xam ne ci wàllu charia lu sew a sew la loo xam ne lu ñu war a xam la lu nit ñi war a xam la. mel na ni ba tey sëñ Adi mu ngi ci ligne bi incha allah. Mhm. yooyu yëpp nga war koo daw. waaye tamit maanaam aj mën nañ koo jàngee isa mhm. mooy am daa sam doon soxla ko. nga xëy ko fa bopp jox ko ko. loolu ku jógee ko rek war nga koo jàng. ndax dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo siis a siis ba seen oto bopp ñoom rek ci dugg mënuma lu boole car seen ñam bopp ñoom kenn na koy lekk mënuñ cee ñu boole kenn mënuñ ci siis siis seen tërël ci dëkkal ko seen li ñu moom yàlla seen ko mënuñ koo xajoo ak kenn ak nag boo fi ñëwee dafa lay jàngal ne fii dund nekkul dund jaamu yàlla ak gaataar loo waaye jaamu yàlla ak bokkaate la moo tax mu bokkaloo la ci sa nga baaxoo woon yow kenn am na ñoo xam ne am na ñoo nekk kenn du ko gis seen bi nga xam la fanaan kenn du ko nga toog dul hmm, kuñ fa toog loo yàlla nag sant la jaamu yàlla boo xam ne par force mu ne la mënoo ñàkk bokkaate néeg waaw ñoom tamit dawal ba toog boo amee juróomi nit santal yàlla. daal de bii nga miinoon yow kenn. pare caabi ya tey nga. kenn loolu xeetu ñaw bu nekk am nga ko yàlla ne la summi dëgër yi nga lu ne ñëw lii ñaari koddaay lay doon bii nga sarax noo ko bii nga wax ko bii nga wax noo ko bii nga gàccoo ko moom moom kese moom kay am na noo xam ne doo ko waxee woddoo nekkatu mu la neex ngay doxee nekkatu mu la neex ngay sëtee nekkatu mu la neex ngay soogee loolu lépp yëre yi moo lay conditionné ni ngay war a soogee ni ngay war a sëtee ngay war a nga ëpp dafa xorox la yaa ngi nii bokkoon sa saal bi ak seen saal ci lim bi jaaxal dañ ko koy si kaakatale si koo di setaan tey nag mu ne la saal baa ngi nii soo boolee samay wala ko mariga daanaka ëpp nañ cinq cent personnes ci benn saal ci doogu benn man na ñun ñëpp ñu ngi toog ci benn ma ñëpp ñu ngi su ko defee kon nag loolu dañ ci jàngee ñu ne la su ko rang ca ba waaye mu ñu ko ne damay def yàgg naa raadu fay ko waaye waaye dafay nekk ndongo daara yàgg naa raadu saabu yalwaan ñu ko jël ko waxal ne léegi ma nekk ndongo lépp yàgg naa raadu yore sama sax ci baal ko pour di ko nekk maa ngi def boo ko jël ci bopp lépp yàgg naa raadu yore nga def lépp wax kër yi da ngay am rek la kon loolu lépp da ngay fekk ci xel yi nga def la mën a Well, yàlla dogal mu ci ñu ci taw ñu la ci ci ay bi na ko bu ñu ci ci ñu ko wala ci ci bu baax ko gëna tek jàng ñu la la am ba yàgg le na gaay gën ndax laay mo ko ci yàlla am wala ci la lu ma ci rek kon kuy ñu na ci ci ci ñu ko la ko ñu ko ñaari ñu ya ñu ko lu baax ñëpp ay do xamal seen xol boo ñëwee ñaari milliards yi man ñëpp tey kenn ku ci nekk ñoom waa xamuñ ko parce que dañ ko doon mën ñoo rek ak ci xale bi amagul làppaat ñaan nga wax boo ko xool maa ngi mel ni sama tegee ne dafa am ñeneen lañ nax te moom moo mën na ko ñëw dafa am nax yaay bi yàlla nga dem nax am bi yàlla nga dem nax te boo nax doon ci lay ñaaral nax xamu ko dañ ko koo mooñaan rek bu juddewaale te xam nañ nax ko xanaa waaye waaye xalaat boobu la ko yaatu bu amati dina nax ah li moo def lu ma neex ak lu la naqari ñoo gën a sonne xeet ko ndax ngërmande yàlla kenn mënu koo am ci ndox laaj lu ne ko a ko ba tappale la jënd kër tappale da sol ba ba takk doom ba tànk takk la sax maanaam tappale la ci ay ci ci maa ko loolu na ko ci bari bu may ko bàyyi man ñu war ci maa ak ñi nga xam ne ñu ngi koy jokkoo ci wàllu bi jokkoo bi di connecté wu loo def yooyu soxna maa ngi nii aara ko fàtte wu ma la maa ngi nii nangam ak nangam te lu ko saxoon rek yàlla xam na ni ñu wàññi loolu dérivé nga yoon ñëw ci maanaam moom xam te soxna si te waa ji ñu jëpp fekk ma laa koy jotagul te wax dafa fulu loolu baaxul nañ ci bàyyi xel am na noo xam ne bu ko mënu balaa tey duñ ko jox dañ koy war a teg ci sell teg ko ci dal ko ci lu rek man fu mu gisee na ma ko xamal ko moom ci biir sama yaram ci biir gën a yore ma ma yore ma man ak ci caméra loola est ce que da nga mën a teewlu teewlu jóge war a a na ci yoo xam ne kenn mënu ko li rajulin min qalbayni fi jawfihi boobu li ñu du noor ay millions lañu fay ñëw fi ñii di fayal leer seen mbokk yëpp koo laajte ñu ne arrêté ñu leen ko mag waaye wax kon nekkee ci biir kër di ngay yàkkam ci biir xalaat yi ko envoyé te envoyé ma tey moom sax te buñ ko envoyé di fulu soo bi baax te ñu ko bu am benn problème waaye ngay ngay envoyé loo xam ne te mën naa malaaka yi dafa gudd mën naa am son bi dafa baaxul mën naa am image bi ko kon nag ñu teewlu suñu xol xam li ñu ci sënd ci lépp suñ ko defee yàlla mën nañu dimbali waaye wax sax yii buñ ko toppee danañu yàqal njàngam alxuraan ci teewlu danañu yàqal léegi ci danañu yàqal sellal jëf jëf danañu yàqal nañ ko war a teewloo ak nañ koy war a teewloo kenn kenn ak sa war sa mën nga ko jëfandikoo bi ñu ëllëg boo ne dama jaamu yàlla sawal la ngay def bu jeexee nga taalaa jox ko ñu lay jox ko salaat waaye heure bu ne boo ci mën a nekk dana dem ba xam ne da nga ko jëf heure bi doo ko mën a war naa ci yàlla bëri na ku ak ci mu formal ak ci nga xam ne tam fa lay baaxee na fay taw doo ko taw ndax wax na fay te lu néew la na mu connecté wu te ko sa téléphone mu ëpp téeméeri ci lay yor boo ko ak njabootam ak soxnaam moo ëpp lan foofu yàlla ci la fay kan ndax ma la fay te nee na yàlla la bëri ñun dañ ci bàyyi xel loolu lépp dañ ci bàyyi xel te dañ ci occasion bu mu jigi ay fii bu ñu ko bàyyee ko benn song dong wala defe moo fi sànn sàcc ja te fii sax mën naa wax ne mooy sànni sàcc daanaka xam ngeen dañuy toog rek di ñaan di teewlu jàng alxuraan toroxlu déglu yàlla fajante bi ko bu jëkk bi xasee sax benn ponk bi def ponk boo ko def ci tax mooy dem defi tawaaful ifaada dañu defoon ifraat dañu defoon iraan ñi nga xam ne nag dañoo defoon tam ko ñaari ponk la ñu def mooy defi tawaaful ifaada tawaaf safa ak safa ak marwa kon su boobaa li nga defee li nga li nga defee moo gën a néew li nga am su boobaa nag ko li nga occasion bi nga ci taxal nga defee koo dabaatal ndax boo demee ci place boo xam ne wóorul dana ci jawaatam jéem waaw nga koo xam ne kan ngaa dogal dem ci ñoom am nga occasion occasion mooy promotion nga am ku am promotion dafa laaj profité waaye boo amee promotion boo profité wut da ngay sax ci lu bëri yal na yàlla defal ñu taw fiir yal na yàlla defal ñu tay fiir yal na yàlla nangu ñu ci aj aj bu ñu nangu dara du fayoram lu dul aljana loolu ci aj la ko yàlla wax ci la ko kon ci la ko yëngu ci wax sallallahu alayhi wa sallam ci suñu wax ko ci julli ci suñu wax ci abada benn bu ci nekk dafa am raa bu ko yàlla fayee joxe alal am na raa bu ko yàlla fayee waaye tamit waaye aj màkka moom yàlla daa amule ñeras nga di fayal jàmbi jiran dafa lay ko yàlla defal suñu armal bii dafa a fàttaliku ci wuy ci guñ wuy ci suñu borom daa leer rek lay lay lay ak di jàngale wax naa li kee dafa nekk néew boo xam ne dañ koo sang sang ko yow nga nekk néew boo xam ne yaa sang sa bopp yaa sang sa xam nga ne tey fële ca ko lay ko si ñu sangoo xarmal fa sang bu ñu deewee moom la ñuy sang sangum janaba sangum jumaaxa sangum néew ak sangum xarmal ak yépp atte yaay wuutee ñu ne sang bu war la fii ñu ne dañ koo sopp fii ñu waaye nañ koy defee yëpp benn la kon néew lañ boo nañ ne xam ne suñu bopp ab néew ñaareel bu sangee boppam wala ñu sang ko dañ ko utal ay sàngaay yi ko sangee sàngaay ga nag leen bàyyi ngi néew buy sàng soo bopp yéen sa yére yam ñawoon comme boo nekkee néew ba dee dañuy summi sa yére nga soloon summi sa xaftaan summi sa tuba summi sa njëllaay summi loo mënoon a fomp summita weer yi summita loo mën a takk lu fees say cër solal la yére bu bees loo xam ne yaa koy daloo tey mooy lan mooy meetaru càngaay yéen lay càngee waaye xam nga ne loolu ñu doon napp ñaari moo fay war a xarmal yi am na dañu ak si ñoo xam ne bu ñu ñibbee danañ ko fóot denc ko ne su ma dee nañ ma ko sàngee donte loolu gisuñu yoonam ku ci def saxata dañ nga jublu sa barkeelu kon kenn ku ne di nga sangu tey li nga sàngoo tey nii mën na la sang boobu wul kon yaay néew boo xam ne yaa sang sa bopp yaa sang sa bopp ab néew bi ñu ko sangee sang ko daanañ ko xenu buñ la xenu yóbbu ci armée la nga ne bàyyi leen maay xenu sama bopp dugal sa bopp ci kaar yi mbaa nga dox ngeen maay wuyu ji ci ma woo du ma xaar ngeen may wuyu ji ci laqayka laahumma laqayka nga koy wuyu ji ba ca kaaba ba ba nga yegtee foofa nga ne bàyyi leen maay wëral sama bopp saataay wër mooy arxaaj bi danaa laaj ci xatam laaj ci xatam suturaal sama awra wër kaaba bi bu jeexee ma tëjee ko julli sama bopp ci maqaamu Ibrahima mu ñaari rakkaay kon laa jëlee sa bopp waaye nag sama jëlee sa bopp ñu lu nga ne nag maa ngi suulee sama bopp kenn di nangu wallahi koo xam seetlu ko leen lu nekk dañ koy war bi seetlu di fi yàlla yi jaama ne dañ koy war jàngee yàlla bari ki démb wala démb fi ñu fanaan ku xool mat la yooyu ñu tëdd mu tolloog suñu jëmmu nekk boo xalangoo daanu ki suuf boo xale ngoo am nga façon tëddin boo xam ne nga tëdd ci wàllu nga nga man ci keneen ci maanaam ci nga xool yoon yañ ko def léegi la ñu ñëw jéggi sa tànk léegi la ñu sa mbisin mbaa mu jéggi sa bopp yi attaniro parmeer différa attaniro yoon yu sew yañ koy bàyyi léegi léegi mu xat ba nga jéggi a jël attaniro moo tax daaw wala ak am na at moo xam ne daaw ñëw na mais daaw ñëw ko ma daawaat bi dañoo toog ci tool ba ñu xool maanaam muy nag ñu toog ba ci kanam benn waay kilifa la mun naa am lu may dégg baat bi mu mu ngi dëkk Mbour keroog lañ dëgg ci tey mu jooy jooy ñu ci biir sant ñu laaj ko ne ko looy jooyee mu ne sama xol dafa mel ni nekk ko man damaa faral di togg ay ñam di ko nangu def dafa wala fii tey ni mu tàngee kenn ku ci nekk yaa ngi yore wantaay xoolal ma banque bi xoolal ma dëkkuwaay bi ak mbokk yi ni ñuy comporté xoolal ma fay ñun ñii ñaari wat bu bëree ma bëri ñetti fan ak ñett waaye xoolal ñu fekk bay am nañu fa tëj juróom-ñaari at am nañu fa tëj fukki at ak ñaar am nañu ko am ñaar fukki at te foofa tëdd ba sànq sànq boobu boobu loxo loxo gannaaw gannaaw am na koo xam ne sax dafay toog benn place sama dëkk bu ne ñooñu laa xalaat bu ko defee ma jooy jooy yi man nag man dama ko toogee dama xalaat mooy armoire kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax boobu teewlu boo ko defee dina na mu sellal na mu gën a sell su ci manqué sama matali la su ci mat yàlla wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf oustaz Ardi am solo xol yi tooy na ndax uh, wax nga ñu lan mooy aj ak lan la war a ci ñun ci wàllu comportement ci wàllu jëflante suñu diggante keneen waaye suñu digganteeg suñu boroom ak suñu digganteeg suñu bopp mu nekk ay yóbbal yoo xam ne ñu nekk fii di labbayka wu di kumali yóbbaloo pour bu ñu delloo ca Sénégal waaye ñi nga xam ne itam ñëwuñu ñu nga foofu ca Sénégal itam war nañ ko mën a yóbbaloo ndax euh, yaa ngi doon wax ak ruu yi di wax ak pas-pas yi di wax ak ngëm-ngëm yi moo tax euh, xol yëpp a tooy ci fii ci tànt bi ndax euh, wax bu jógee ci xol ci xol rek lay lay dugal xam naa mbokk yi ci kanam tuuti dinañu waxtaan ak ay borom xam-xam yu fi nekk ñoo xam ne daal ku ci nekk dinañu apporter ay njëriñ ak ay mbind waaye rek ma bàyyi leen ngeen continuer ak élément boobu ngeen doon teg bu ko defee buñ ca sottalee buñ ca sottalee rek ngeen wéy di jël yóbbante ñaan ñi nga xam ne mbokk yaa ngi ko yóbbante fu nekk wax naa ko waa tànk bi sànq maa ngi leen koy waxaat waa Sénégal yëpp leen ñaan ngeen ñaanal leen ndax soxla yu bari na soxla yu bari na bariwaay boo xam ne boo ko yeboon ci avion avion bi du mën a daaw waaye su ngeen nekk ni ñoom jàpp nañu ne bu ngeen leen ñaanalee ngeen ne dinañ nangu kon yéen waa Sénégal yëpp na naa seen yóbbante fii Arafat incha allah képp ku wootewul woon mën na wootee ngir yóbbante ñaan waaye ñu woote woon ñëpp na ci seen xel dal ngir yàlla nangu seen ñaan incha allah kon xam naa ci kanam suñu waajur wi fi ñëw pour jëm ko fee wuutu mu ngi noon dégg ngeen ko Oustaz Hassan Ngom mook Oustaz Hadi sa taxawaay bu am solo ba nga xam ne ña nga fa nekk ca Arafa ni ko waxee dañ leen di daal di ubbilaat ligne bi rek ngeen profité gaaw daal di dugg indi seen i ñaan incha allahu taala yóbbante ko nga xam ne bu ñu dellu siwaatee ñoom dinañ leen ko jox bu ko defee incha allahu taala ñu ñaanal leen ko foofa ca euh, makkatal mukarram waaye foofa ca arafa macha allahu taala ñu ndokkeel leen jaajëfal leen bu baax a baax euh, ñoom waaye ni ma ko waxee sànq xam naa ne tey xol tooy na ndax sànq bi ñu tàmbalee teg euh, portrait boobu nga xam ne alaaj Sid Lamine rahmatullahi alayhi moo ko def ñëw ñu pare ci salaamaaleykum waaw ñu pare bu buñ ca pare mhm. jàllale indi Serigne Hadi ak Oustaz Hassan mhm. ca kaddu yu am solo yi nga xam ne eh, dégg ngeen ko tabarakallahu Serigne Hadi yëkkati ko foofa ca Makkatal Mukarram nga xam ne mboolem ku ku nekk ku nekk ku nekk Makka xolam tooy na mhm. mboolem ku nekk Makka am na lu mu yëg mboolem ku nekk Makka am na lu mu bàyyi xel tey sa xel delluwaat na ci yàlla sa xel delluwaat na ca tabaarakallah borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. ndax ni Serigne Hadi waxtaanee mm-hmm. xaal bi nga xam ne waxtaanee na ko ni ko Oustaz asan waxee mm-hmm. dem na direct wax ak ruux yi waaye dem na direct wax ak pas-pas yi waaye dem na direct wax ak ngëm-ngëm yi macha allahu taala yal na yàlla defal ñu dégg ak topp xam naa dañuy daal di demaat rek waaw euh, Oustaz euh, Mouhamed Souleymane waaw tabaarakallaahu moom laal doon wax léegi rek euh, sànq ci waxtaan wi Euh, li nga xam ni oustaz Hady euh, euh, Niass jàllale na ko muy message yu ama am solo muy message yoo xam ni umma islam bi yëpp dañ koy déglu dañ ciy bàyyi xel muy loo xamante ni njàngale da ci am muy tatxirun nas am na ci ci waxtaanam beneen mooy tëskiyatu nafs am na ci ci biir waxtaanam nga xamante ni fàttali na euh, nit ñi lan mooy arafaat fàttali na nit ñi lan mooy taxawaayu arafaat gi balaa ñuy jël élément boobu nga xam ne mooy Sidi lamin Niass nga xam ni yàlla xam na ni tey ku am ku kuy am yëg-yëg rek di nga am loo sentir ci Sidi Lamine ndax meloom ak yaatuwaayam ak yaatu dënnam ak ni nga xamante ni noonu la doon dundee xam-xam macha allah ci réew mi ak bitim réew ak fu nit ñi mën a nekk moo ni oustaz Hady di waxee di ko defee noonu la ñu soxla ci xam-xam xam-xam bu ci yaatu jeexee leneen nekkatu ca xoolal tey ni mu yaatalee ñooñu nga xam ne ñooñu la bokkal jotaay ba oustaz yi nga xam ne tudd na leen oustaz Dame Ndiaye yi nga xamante ne tudd leen ci biir waxtaanam yaatal leen foofa ci biir jotaay ba ñu dégg seen i tur xam ne ñooñu day ña nga bokk ak ñoom te jotaay ba mu indiwaat li nga xam ne mooy njàngale arafaat wax ci lu am solo oustaz Assane Diouf tam posé ci question yoo xam ni question yu riche la question yu dynamique question yu pertinente question yoo xamante ni nit ñi mën nañ cee jariñoo ba tax dina mën a toucher Oustaz Hady ci biir communication mu mën a indil loo xam ni askan wi dañ koy dégg Sénégal jariñoo ko Arafat jëriñoo ko waa mu Mukarram waa na Munawara ñun ñii ne fii Sénégal mel ni sax ña nga ca Makka wala mel ni sax ña nga ca Medinatul Munawara loolu mbokk yi dafa doon loo xamante ni njàngale mu riche la njàngale mu rafet la njàngale mu jaar yoon la moo tax mboolem soppee yeeg am di jàmm yi nga xam ne tam ñu ngi topp wal fajri di leen suivre di ànd ak ñoom ci bisu Arafat gi dinañ ci jox dédicace ku mel ni rek sunu yaay jooju di Adja Mbayang Kayre nekk ca Thiès di ku baax. di topp euh, émission yi ñuy def fii ci télévision beeg ci rajo bi Adja Mbaye ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaara di nuyu suñu yaay Adja Fat Diop di nuyu suñu yaay Adja Awa Kouaté beneen bi itam soxna Umu Ngom nekk ca Mbuur ñu nuyu ko ziyaar ko bu baax a baax nuyu soxna Fat da baax nekk fii ci Amosis Ami Diop nekk ca Kanjumi moom ñu nuyu leen ziyaar leen ñoom ñëpp ñu ngi de envoyé nit ñi ci seeni i WhatsApp ndeysaan di wane ni am na nañu mbégte ak contentement ci bis bi nga xamante ni mooy Arafat comme ni nga ko waxee rek Oustaz Mouhamed ñu delluwaat antenne bi ki nga xamante ni mooy sunu papa nekkoon borom xam-xam boo xam ne mursid la alimul allaama la borom xam bu yaatu woon dënn ndax xam-xam li Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh daan wax nee na sunu mësaan a dajeeg ñi nga xam ne mooy Serigne Fallou Mbacké mag ñu tedd ñooñu ñi nga xam ni mooy sunu maam Khalifa ñas mag ñu tedd ñooñu nga xam ne ñooy nekkoon ci di diine ci dëkk bi nekkoon fi ay chef religieuse mboolem seen taalibe yi sunu maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul mboolem kilifa diine yi soppe yi am di jàmm yi amoon nañu cofeel rawatina ñi nga xam ne ñoom la Sidi Lamine Niass bokkaloon jamono. ñu leen doon déglu ku ci mel ni Serigne Maodo si yàgg nañoo dégg ay kàddoom ci Sid Lamine ku ci mel ni Serigne Abdoul Aziz Al Amin yàgg nañoo dégg kàddoom ci Sid Lamine ak soppe yeeg am di jaam yu Oustaz Mouhamed comme ni nga ko waxee rek ñu delluwaat antenne bi ki nga xamante ni mooy suñu papa Hadji Sid Lamine ñett na war allahu dariahu yàlla na yàlla yokku leeram kontaan nañ ci Oustaz di bu baax a baax kontaan ci Oustaz Assane Diouf bu baax a baax ci seen liggéey bu rafet macha allah tabarakallah xam naa kon dañuy daal di ànd ak ajaratu bu ko defee yàppenda mu indil ñu waxtaanu alaaj si Lamine Niass waaw dégluwaat ko ay minutes te mhm. dellu si waat incha allah incha allahu taala ubbiwaale nag antenne bi 88 628 99 99 114 incha allahu taala ak làkk bi nga xam ne moom ngay waxee ak say ñoñ moom ngay dëkkee yaa ngi ciy waxee ak yàlla kon fii mooy fi nga xam ne mooy melting pot moo dajale mbooleem xeet yeeg làkk yeeg yëpp ci benn yàlla mooy na nangu ne yàlla moo leen bind nangu ne yàlla moo leen amal nangu ne yàlla moo leen sant nangu ne yàlla moo leen wax ñu def looloo tax ñu ñëw taxaw tey taxawaayu toroxlu taxawaayu dellu ci yàlla lislaam itam ci wane ne mooy dëgg ndax dëgg rekk moo mën a tax ñu fi ñëw tey ñëw feeg ñu fi ñëwee ci seen coobare bopp ci seen am amu bopp ci lu leen yàlla may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 alhamdulillahi alladi jaala madxal mustafa afdala ma yataxalla bihi ahlu safa wa axsana ma nataqat bihi alsunu albulaga walsalatu walsalaamu ala man baharat li jalali qadrihi wa miqdaarihi uqulu alaarifin sayidina wa xabibina wa shafiina wa sanadina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi amaan mbégte dellu siwaat fas yéene jàkkaarloo ak yéen fas yéene ànd ak yéen incha allahu taala ci spécial arafa bi fa yéene ànd ak yéen dégtal leen mboolem luy xew foofa ca arafa ànd ci ak tabarakallahu sunu sëriñ sëriñ Hadi ñas mi nga xam ne ma nga foofu waaye ànd ci ak sunu sëriñ Oustaz Hassan Diouf mi nga xam ne ma nga foofu waaye balay boobu ñu taxaw euh, def delluwaat bàyyi xel ñaanal borom kër gi ñaanal ko yàlla yal na yàlla dolli ko sutura yal na yàlla dolli ko defal tawfiq fa mu tëdd yàlla dolli ko topp tëbb ay leer ca fu mu tëdd muy alaaji Sidy Lamine Niass mi nga xam ne initiative bu rafet bi xalaat bu rafet bi sunna su rafet si moom moo ko dëgëral moo ko taxawal te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne woon man sanna sunnatan xasanatan falaha ajruha wa ajru man amila biha yonent bi moo ne woon ku taxawal sunna su rafet bàyyi ko fi dem képp ku jëf sunna soosa dana ci am yiwam waaye yiw wu tol ni woowu ma woowu am moom yow it danañ la joxe yiw wu tol noonu kon tey alaaji Sid Lamine kenn mënul tere yiw yi nga xam ne mooy balle tey ci kër gi rawatina ci bis bi incha allahu taala mu jot ci wàllam ndax ni ñu ko déggee euh, Serigne Hadi wax ko ci biir kaddu yi nga xam ne dégg ngeen ko sànq mu wax ko Serigne Hadi xam la ne ne sunna si di arafa taxawaay bi ak koor bis bi nekkoon na sunna soo xam ne xawoon na réer xawoon na rab ñu baree bari daawuñu ko bàyyi xel waaye ci taxawaayam ci yitteem ci njàmbaaram ci yitte ju kawee ja moom Alaaji Si fexe na ba macha allahu taala tey mu ngi nii ñu ngi koy taxawee ñëpp di ko bàyyi xel di ko màggal bu bis bi jotee sa xel du dem fenn ci wal Walfajri la jëm ndax xam nga ne macha allahu taala am na taxawaay bu rëy bu ci Walfajri di taxaw waaye loolu nag Alaaji Si Lamin ne ko fi jëmbat kon ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na yàlla yokk ay leeram yal na yàlla dolli ñoo taas ci barkeem ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu nuyu ziar bu baax a baax nag mboolem personnel bi nga xam ne ñu ngi ci kër gi tabaarakallaahu waaye nag nuyu ziar bu baax a baax a baax sama yaayu bopp ajaratu Penda Diallo Gueye macha allah moom nga xam ne moo nekk ci wàllu technique bi nga xam ne ci fajar ba léegi euh, toqiwul tàyyiwul sonnul lépp rek ngir yàlla ngeen am euh, seen arafa bi am ko en direct ànd ak ñoom Oustaz Hassan ànd ak ñoom Serigne Hadi ci ñaan yu am solo yi ajaratu Penda ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu yaay jooju yàlla na yàlla dolli ko wér yàlla ko yàlla dollee sàmm moog Jacques Préra mi nga xam ne moom la feggool ci liggéey bi yàlla na yàlla jàppale leen ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko defee nuyu nañ ziar nañu ndokkeel nañ mboolem xalif généraux yi ndax tey bis bi bis bu màgg la bis bu rëy la képp koo xam ne kilifa nga rek yegg nañ ci yow sukk suñuy bëtu ci sa kanam nuyu la ziar la ndokkeel la ñaanal la borom bi subhanahu wa taala ci barke bis bi ci barke taxawaay bi yal na yàlla yàggal la ci kanamu njaboot yal na yàlla dolli sa sutura yal na yàlla dolli sa tawfiq ñu tàmbalee ko ci Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des tiijan ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yàggal lool ci kanamu njabootam yal na yàlla dolli ko fee yàggal lool te mu ànd ak wér ci barke bis bii nga xam ne mooy bisu Arafa Serigne Mountakha Bachir duñ ko fàtte moom it dañu koy ñaanal yàlla yal na fi yàgg lool moom it te ànd ak wér ci barke bis bii tabarakallah waaye Serigne Chama Tidiane